xalif asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, ni ñu ko baaxoo defee ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waaye mu nekkoon liggéey boo xam ne mi ngi tàmbali woon ci Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacké yal na yàlla doole ay ngërëmam jaar ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ba agsi ci Serigne Sidi Mokhtar ba ñëw ci Serigne Mouhamadul Mountakha Euh, commission bi nga xam ne Serigne Modou Mamoun Bousso la Serigne Saliou tànnoon def ko mu nekk ci bopp commission bi waaye mu fekkoon ko ak ay kilifa di Serigne Ahmad Rafahi yi moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke waaye ak Serigne Khalil Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ak bokk yi nga xam ne Serigne Abdou Diop mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi ak Serigne Bachirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo nekk Daarul Moxti ak bokk yi nga xam ne ñoom nañ baaxoo de àndal fii ci jumaa ji saa yu weer amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu àndandoo Euh, wax ko ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi nee nañ maase séentu weer wi te ku ca xam lu wér nga ñëw yëgle ko bu ñu noppee danañ ñëw fii ci bunt sowu bi jàkkaarloog tëli alaaji Babacar Kébé njugo ñu gën ko koo min léegi ci ma waa su suñu ko séentoo ba waxtu jot danañ jokkoo ak kër sëriñ ba suñu jokkoo ci sëriñ bi nag ndigal luñ si bàyyi koo sëriñ Abdou Diop imam dana ko jottali fan juróom-ñeent am na ci weer wu ne sëñ bi danoon yabal ñu dikk ci jumaa ji yéene ngir ñu séntu weer wi bu ko defee soow jumaa ji nuy di ko séntu ak di taatan xibaar yi loolu nag bi ñu ko defee bi ñu génnee noonu ñëpp jam jandoo na ak weer wi ba it xibaar yi xibaar yi bari na lool ñu rot wane ne weer wi feeñ na fekk na noonu jandloog moom waaye nag bañ defee noonu jokkoo nañoo kër sëñ Muntaxa ba loola di fa jële ndigal ndigal loo xam ne da koo wékkaatoon ci noonu waaye nag moom ginnaaw mooy kilifa gi moo war a joxe ndigal rek ñu ñu yëgal ko ko bañ ko ko yëgalee mu wax na ne kon nañ jottali ne weer wi feeñ na nga xam ne suba ci alxames ji mooy benn fan ci ramadan na ko ñëpp xam xam ne ci fii ci Touba daal ñëpp mbooloo mi gis nañ weer bi euh, kon suba ci alxemes ji mooy benn fanu ramadan na ko ñëpp xam kon nag nuy ñaan rek yàlla dimbali nu ci weer bi ban ban koo wooree nin ko nin ko war a woore te fa liñ ci fàggul lépp muy jaamu yàlla gi ñuy yokk lépp nu yàlla dimbali nu ba bu weer wi deeyeet nu mën koo jàllale wala yokk ko nu jàppee ne weeru ramadan wi weer la woo xam ne dañ ci tàggat suñu bopp ngir eh, ci jaamu yàlla bu ko defee nag ndax weer yu bu teroo da nga gis nit ñi jëndi kaamil ak di yandu ci jàkk yeeg di naafila ka jàng ka def lépp loole nag bu weer amu weer wi tërwut it war nañ waaye nag day kon ndimbal la doon ci noonu ba danañ ko tàmm ba bu weer wi dee loole nu yokk nu jàllale ko te ko koo yemale ci weer wu dee wi rek yem ci asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokk yi fii teew teewal fi ay kilifa yi nga xam ne ñoo jiite yoon te suñ mën taxaa ci bopp bi waa kër Serigne Touba ñoom ñëpp seen ndaw teew nañ fi ñu ci bare bare ñu di leen nuyu ci turu Serigne Mountakha di leen nuyu ci turu njabootu Ahmad Cheikh Ahmadul Khadim yëpp di leen sant di leen siyaare di leen ñaanal di ndokkeel Cheikh Mouhamadul Mountakha ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy awalu Ramadana di bisu alxames di alxames ji di suba ji benn panu Ramadana. ñuy ñaanal sëñ Muntaqa mi nga xam ne moom la Seexul Xadim teg ci kanam yoon wi yàlla yàggal ko fi wéral ko may ko may ko ci liggéeyam bi may ko aafiya may ko xéewal may ko wér-gu-yaram di ko ñaanal jullit yëpp di ko ñaanal taalib yëpp di ko ñaanal réew mépp ak bitim réew ak adduna bépp yàlla fi yàlla def jàmm ah, di bis boo xam ne weer woo xam ne bii nag weer wu màgg la weer wu tedd la ah, ni ko Cheikh Ahmadul Karim waxee ci yaa xayra dayfin boobu nga xam ne mooy xasida googu yi ci nuyoo bi ak xasida gam ko tàggoo yooyu yëpp nag difir ne ni sëriñ bi moom jenn yitt ci àdduna lu dul rek la ca aju ak nañ koy taxaweek nañ ko na na na la ca war di di di di ca soññe di di di di di ca bégle di nit ñi di leen joxe xéewal di leen eh, teral boole ko mbégte ba nga xam ne wax nañu ne aajo ju waaye mosa am sax da ko daa dégge nége awalu ramadan lu ko ca waay mosa wax rek mu defal la ko ndax mbégte gi nga xam am na ko ci weer yi naka noonu bu ko daa tàggu lu ko nit danaa xa telu dara ak gan gi nuy bëgg a tàggu kon nag nun sun sun royteef leera nañ Cheikhul eh, Khadim fi mu teg weer wi ak ni mu ko doon dundale ak ni mu ci doon def nan ci bokk maase jàpp ko taxaw ci lislaam ji bu baax taxaw ci diine ji bu baax taxaw ci taalibe bi bu baax ah, ñaanal sëñ Muntaxa bu baax a baax a baax toogaayam bii saa borom yàggal ko mu nekk koo xam ne kii li ci xol bi ak li ci yéene ji eh, lam yi mënu koo tudd ba képp ku di taalibe te xam ko déglu ko muy wax da nga xam ne li mu ëmb ci xolam ak li nga xam moo ne ci xel mu bëgg ko eh, lam yi mënu koo taatan bu wax ko loolu ñun ñëpp xamadoon nañ ko pasteefam bu rafet ak taalibeem waaye yal nañ yàgg ci ginnaaw mu yàgg suñ kanam ñun ñaanal bokki taalibe yëpp di leen ñaanal yéen murid yi yàgg ñi nga xam ne ñoo fi teew ci rajo yi yal ko teewee na gën déwén kullu wa antum bi xayrin wa salaamu aleykum wa rahmatullah jafe-jafe dem